mbokk yi ñuy seetaan ci tuuba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafet du ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi nag tey ñu ngi toog ak Serigne jàpp mbay nekk jànkatu xasida bu mag boo xam ne mu ngi yeewoo ci dëkk bu sell bii di Touba. ñu ràññee ko ci loolu ab taxawaayam nag mu am bis bu am solo boo xam ne war na ko amal mu tolloog le 20 avril ji ñu jëm yemook samedi bis boobu nag ñu fas yéene ci woo waxtaanee ci taxawaay bi ci lu waral mu taxawal ko. ak kilifa yu bax yi nga xamne jël na bis bobu jagleel len ko ak len ci programme bis bobu kon buñu def dul rek bayyi sunu gan alaji njàpp mbay mu nuyo khassida rek ñaari bay du al astaghfirullahal asima waatub ilay min sahiril wa min khiyar وصلته بحق وجه الله مغفرة من جملة الملائكة تبت له من جملة سقاهر مع الكباهر ومن دمائرك خافر لقفر كلما تقدم وما تأقر وما بينهما فإني العلم وسدني الماء وعملا وادبا وفهما ربي الاكتفي في العلوم wajal ayaati min saqain mania iksif li al asrara wal khawamida ya khayra man kasafa siran khamida jërëjëf sëñ Arouna ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam sant sunu ñaari sant Serigne Touba Xaadimu Rasul noo ngi nuyu mboolem kilifa yi diine ci réew mi yëpp di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mamadul Muntaxa di ñaan suñ boroom muy yàggal ko fi loolu te wér noonu la ni nuyoo Serigne Amdi Modou Mbenda Fall di xalifab Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu sëñ Touba gi nga xam ne ñoo ne ci réew mi yëpp ak mboolem kilifa yi diine yi di ñaan képp koo xamante ni bi yàlla dogal na nga gis suñu image bii. noo ngi lay nuyu bu baax te di lay ñaanal jàmm te di la jox sa wàccuwaay wi nga yelloo moo ngi nuyu ñëpp bàyyiwunu kenn. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci nuyoo bi euh, sëñ jàpp euh, comme ni ñu ko waxee rek ndax mën nga ñu ñëwal ci bis bu am solo bi nga xam ne euh, yaa ngi koy taxawal bis bi ba nga ko dalee taxawal ak léegi ñaari ñaata at la ak lu waraloon nga taxawal bis bu am solo bi. waaw ah, kay jërëjëf sëñ Arouna bis bi mel na ni maa ngi ko njëkk taxawal. le vingt cinq mars deux mille vingt et mooy première édition bi boobaak léegi nag yàlla dogal na defaatuma ko ba ren ji incha allah mooy mooy deuxième édition bi mooy war a doon le vingt avril deux mille vingt quatre incha allah bis bi nag li ko waral rek mooy yëg yëg ci sunu xol ak ci sunu jëmm ni war nanoo sant sëñ Tuubaa ni sant sëñ Tuubaa sax moom ci lan dëkk. ci lañ dëkk saa su ne nooyi guru nooyi rek balaa génne ne dellusiwaat sant sëñ Tuubaa lañ koy sante li tax ñu di ko ko sant nag mooy suñ borom dafa wax ci alxuraan ni bala nga maa sant man suñ borom da ngay sant doomu aadama ba noppi moo tax sunu sant ci suñu borom ñu di ko jaaral ci Seexul Xadim ah saa su nag heure bu nu xëyee di ko sant waaye nag lii moom lu ñuy fesal la rek ngir ñëpp xam ne war na noo sant sëñ loolu rek moo waral. ñu taxawal bis bi bis bu am solo yaakaar naa eh, bis bi bëgg nañ xam programme bi naka la fasiyene tëddee di nuyu bu baax njaati gel Touba Argentine TV momit it mel na ni bokk na ci ñi nga xam ne eh, jël nga cër bu rëy jagleel leen ko ak ñeneen ak ñeneen bëggoon nañ nga ñëwal nu ci bis bi eh, programme bi nan la fasiyene tëddee ak kilifa yu baax yi nga xam ne jël nga programme bu am solo boobu jagleel leen ci ay cër yu rëy. ok jërëjëf sëñ Arouna bis bi nag reen incha allah rabbi dañu ciy sant sëñ Tuubaa di ci delloo njukkal Cheikh Ibrahima Fall ndax sunu tefeel ci moom ak xam gu nu xam ni képp ku jaruñ ci sëñ Tuubaa rek Cheikh Ibrahima Fall nga ko war a sant moo war a ren di ñu di ko delloo njukkal ci bis bi. bis bi nag ñi nga xamante ni bi yàlla dogal na ma tudd leen ci te jox leen ci ay cër man yàlla damaa boole nit ñi yàlla boole ma ak ñoom ci anam bu rafet ñu demee jàppale ci saayir ak ci baatin. moo waral at mu jot rek ma ji tànn ñenn ñoo xamante ni bii sama nit lan tey it ma seq ko ak ñoom ma jox leen cër ci bis bi ndax kenn ku ci nekk ci ci ñoom ñi nga xamante ni ñoom laa jox cër ci bis bi seq nga ak man loo xamante ni bii am naa yéene sax ci sama xol ma tuddale doom te xam naa ni comme ñoom sëñ Tuubaa rek ma booleeg ñoom ma xam ne amuma lu gën a rëy ci ñoom def bisub sëñ Tuubaa jox leen ci cër moo war a ñooñu ma tànn leen ci di ci jiital sëriñ Mouhamadou Lamine Mbacke mi nga xamante ni bii yàlla dogal na mook sunu sëriñ sëriñ Seex Umi Mbàkke mu sëñ Fàllu seen ñaari waajur ñoo bokk yàlla dogal muy sunu sëriñ di sunu xarit moom it mu jàppale ci saayir ak baatin ñu ñu jël cër jox ko ci bis bi sëriñ Maxtaar Jenn social moom it yàlla dogal na ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa xaside yi buñ ko dee jàng ba man cee xam benn bayit boo xamante ni bi àgg na te xam li ci sëñ bi jubloo wax ci moom la ko suñ boroom jaarale ndax bi yàlla dogalee ñuy jàng alxuraan ba noppi sunu waay jur ci moom la ñu yóbbu ñu defee jàng njàngum arab moom moo nu jàngal arab yàlla dogal nu bokkoon benn gox bu du dëkk waaye muy nit ku baax di nit ku mën a rafetal moom it di nu jàppale ci saayir ak baatin lim ñu defal nag nee naa ko mu moom mënuñu ko mënuñu ko koo fay li des ci àdduna mënuñu ko koo fay ndax benn araf rek ku ko def ci yow boo ko defaloon àdduna ak li ci biiram taxul nga dab ko moo waral ñuy jéem a dab àq rek suñu diggante ak moom moo waral moom it ñu jox ko cër ci bis bi Serigne Gora Seck Euh, moom it wax naa ko ko bi ma koy jox cër ci bis bii moom yàlla laa dogal mu yàgg noo jàppale sëñ góor bépp rajo bu mu mosana rek bala faa invité benn jànkat man mi lay woo invité ma ba noppi ba daaru moxti bi mu fa nekkee defal na ma fa émission ma dem ma dem ma dem def fa émission ba yàlla dogal ni mu génne réew mi boobaak léegi amul benn yoon boo xamante ni bii fàtte na sama diggante moom saa su ne mi ngi ñuy nemmiku dinu dinu dinu dinu dinu soññ dinu dinu ñaax ci xasaay ak di yëkkati ay terangam di ko def ci sunu jëm ngir yàlla gim sëñ Tuubaa xasida yi moo waral momit ñu jël cër jox ko ci bis bi sëriñ Ibrahima sar ak sa momit di jànkatu xasaay yàlla leenu ban doone atu ay tuur tànk ba nëgëni waaye sama diggante ak moom lépp rafet maa ngi moom ñoo daan bokk benn lal bu daan fanaan bu musana a ay jàng bu guddee bu fekkee sunu kër moo gën a jege sunu kër lay fanan bu fekkee këram moo gën a jege lay fanan boba ak leg momit sama diggante mom rafet mo waral momit ñu jël cër jox ko ci bis bi ak Serigne Cheikh mbay di rakk serigne Abdoulaye mbay Peex momit it di suñu wëlër lo di suñu xarit ak serigne Galas Diop ak Baye Mbacke sambu di doomi serigne Ousmane sam ñom ñëpp di suñu wëlëré cheikh ak ñun ay teranga cheikh ak ñun jëf ju rafet motax bis bi nga xamné ne amuñu lu dul ñu jël cër jox leen ko ci incha allahu rabbi. kon ñoo ñoo nekk parrain wu bis bu am solo bobu nga xamné ne ci sante ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim mu am na ñoo xamante ne bii samay jigéen la ñoom itam seq ak man lu lu baax seq ak man lu yiw ñoom it ni ma ko waxee ci góor yàlla yi rek la demee ci ñoom ñuy samay jigéen ku ci demee ni soxna Fatou Diaw di soxna Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Sohaibou yàlla dogal moom itam mënu jàpp mënuy jàppale ñu jël cër jox ko ci bis bi ak ku ku ñuy wax soxna Kiné Gueye moom itam di sunu wëllëre moom it dëkk ba Ndindi ak moom it féete Ndakaaru ak soxna Awalo soxna maam Diarra Niass soxna Faliloo ak euh, soxna Ndeye Ami Guèye ñoom ñëpp ma jël cër jox leen ci bis bi ñuy samay jigéen di samay xarit ñoom it am cër ci bis bi maa ngi leen di soññ bu baax di leen woo ñu ñëw teewee bis bi ak mboolem ku am rek. Euh, yaakaar naa kon bis bi la 20 la war a doon programme bi nan la fa fas yéene tëddee foofee ca Touba Ndindi. waa incha allahu rabbi bis bi bu nu xëyee dinañ jàng alxuraanu karim ñaanal ci ñi nga xamante ni bii. ñoo jiitu ji ñëpp ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy rendre hommage ci bis bi ku ci demee ni sëñ Moustapha Mbacke di sët ci sëriñ Mbacke Kajoor ñu gën koo xam ci sëñ Mbacke Ibra ak sunu maam sëriñ Lam ak ji Cheikh Mbuub ak sëriñ Modou Kansin ak ku ñuy wax euh, soxna Ami Tour Mbay moom it di waay juru soxna wa ñing moom it dañ koy rendre hommage ci bis bi bu nu xëyee dinañ jàng alxuraan durus ay xasida ñaana leen ci bis bi bu nu demee ba yàlla dogal bernde yi noppi diggante deux heures trois heures bu nu xéewloo ba noppi nag doog a génn ca baas ba tàmbali njàngum xasaayit yi trois heures ci ngoon ci bëccëg bu nu xéewloo ci bëccëg gi ba noppi rek waaw bu nu añee ba noppi rek njàngum xasaayit mi da daal tàmbili comme bisub jànkatu xasaayit leen te jànkat yëpp ay ñëw moo waroon ñu bëgg rek programme bi teel a tàmbali bu ko defee moom waaw cérémonie bi diggante 22h 23h incha allah rabi danañu tàmbali cérémonie bi waaw bu ñu noppee continuer continuer njàng mi ba fu ko suñ borom yemale rek yemale ko ab am yamawaay bi daal amul ab ab waaw message bi daal mooy képp koo xamante ni bi yàlla dogal na ngay gis eh, image bi na nga xam ne jiitalu ma kenn bàyyi la bis nag mooy loo xamante ni bi bu bu xasee dëgmal rek daanaka sam xel day jaxasoo ba ñu bëree bëri ñoo xamante ni bi war nga leen a woo wala war ngaa dem ci ñoom sam xel day lënt waaye amul kenn kenn koo xamante ni bii jital naa kenn bàyyi la képp koo xamante ni bi gis nga image bi rek jàppal ni yow laa jiital ci bis ba yow laa ko njëkk a yëgal ndax man bu ma soñoon bis bi may def di san sëñ Tuubaa moom taalibe sëñ Tuubaa yi rek ci ciy teew ak julliti yàlla yi ak képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah ndax sëñ Tuubaa lan koy wooteel te sëñ Tuubaa dara am génnul islaam kon maa ngi ñaan ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa képp koo xamante ni bii gis nga gis nga image bii da nga jàpp ni yow laa jiital ci bis ba jiitalu kenn bàyyi la góor ak jigéen mag ak ndaw fas naa yéene daal bëgg naa incha allah rabbi ñëpp añ see fa bu nu añee ba bu noppi rek tàmbali programme bi di ñaax nag sunu mbokki soxna yi nga xamante ni bi ñoo war a ñëw incha allah ku ciy ñëw nga sol col gu jot muur sa bopp xam ni ci bisub xasaayit nga jëm si waaw li nga xamante ni moom lislaam sant jigéen daal mooy sol col gu te jot muuru xam ni ci bisub xasida nga jëm si maa ngi ñaan képp ko fa teew yàlla na Serigne Touba faj sa yaaju jërëjëf sëñ jàpp Mbaye Xasida ñu ngi lay remercier bu baax di la jaajëfal euh, ci jataay bi nga xam ne seqoon nañu ko ak yow mm, ngir waajal bis bu am solo bi nga xam ne eh, yaa a amal la vingt jii di ñëw waaye sëñ jàpp bu weesoo nag xasida yooyu sëñ jàpp ci lu mu jàpp moom. man ci sëriñ bi xasida yi rek laa jàpp. sant sëñ tubaa delloo njukkal si ñëw ku fa bëgg a ñëw bu yàlla dogalee nga yor oto boo ñëwee ba ndindi boo rombee penc mi rek boo do doodaan bi rek amna benn tax mu weex mu mag moy jot sa loxo jor bo jéxlé tax mi rek amna na mbaarum ñax mu ne ci kaw télé bi mbar mom ngay continuer tout droit ba ci kër inshallah ku yalla dogal yoro auto yit bo ñëwé ba ci jumaaj tata numéro 2 bi mo fay ñëw bo ci duggé bo ne ko table bu gudd bu la wacce table bu gudd bo xolé sa loxo jor da nga seen tante bi inshallah allah. merci beaucoup mu nekkon suñu gan jàpp mbay jankatu di wajal bis bu am solo bis sant Serigne Touba kagn la wara don inshallah Euh, samedi ñaar fukki fan ci weeru avril atum 2024 ji ñu nekk incha allah Touba Argentine TV euh, njiit li di a sekk mu jël bis bu am solo euh, mu jël teraanga ju am solo jagleel ko ko muy boole ko ci parrain yi incha allah daañu ànd ak moom ci bis bi kon Touba Argentine TV dana ànd ak yow bis bi.